am denc wey naa am joxe jot naa xam jëfe jot naa ngir mbër ma dem naa ngir Bàmba dem naa 19 juillet 1927 ca njaareem mu mel ne mbir xew na nit ñay laaju ak a lijjanti sa ëllëg sa kenn xewaluwul ngir tiitaange yàgg naa tàggoo dañu ko déggul yàgg nañu koy misaal dañ ko gisul woon cheikh bamba nekkatul àdduna ngay tukki cheikh bamba dem na njaareem wéet na tuubaa jooy na yoonu murit ser na lislaam sëngéem na xaadimu rasool fekki sangam bu tedd bi yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam matal sëkk liggéeyam bi jàmbarloog nasaraan bi ngir diine des ci réew mi mu yóbbu ko fu ne mu daj ci lu ne ba am ca ndam Cheikh Bamba dem na bàyyi fi yoon wu dëgër ak i murit yu jaaju وفي بقائي يسر أحمدا